Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf wàllu koom wàllu politique ak yoon ci la yéenekaay xëye tey réew mi quotidien di wax ci référentiel des politiques publiques bi yees yéenekaay bi di xam ne ni kon jiitu réew mi Bassirou Diomaye fay jël na PSE daal di koy sànni ca mbalit ba mu fas yéene léegi la la programme bi nga xamante ne dafa ñal Sénégal 2050 yéenekaay groupe réew mi network bi di xamal ni présentation bu ñu war a amal niki altine gi ca Diamniadio Diallo secteur privé national ak international société civile partenaire de développement yi boroom xam-xam yi di universitaires yi acteur public yi naka noone ONG yi ba ci syndicat yi ñépp a ko war a teewee ci programme nguur yees gi bokk na ci tamit protection sociale Le Soleil yéenekaay moo ci dikkaat di wax ci li nga xamante ne moo tukkee ci ndajeb conseil des ministres di wax la ni kon njiitu réew mi li mu ci namu mooy gën a càmbar xool bu baax ana ñan ñoo ko yellool laataa ñuy xam ana ñan ñoo ko yellool Walf Quotidien ni bu yóbboo Sénégal ci diwaanub ndakaaru yéeni bi njort ni kon finance publique yi daal cooli war naa yënguwaat ndax sénégal war naa jàkkaarloowaat ak investisseurs yi naka noonee financier yi sénégal mi war a càmbaraat contrat pétrolier ak gaz yi daal di koy négocier waat bis bi le jour jàpp ni loole dafa mel ni tiital na lool ñi nga xamante ne ñoom ñooy experts yi investisseurs yi tamit ñoo ngay artu te ñoom ñëpp yéeni kaay bi di ñu xamal ni ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax ana lan moo war a tukkee ci élection législative yi ñu dëgmal li am ba am commission bi yor wàllu renégociation yooyu xool bu baax li nga xamante ne moom la Woodside daal di dépensé ngir exploitation pétrole bi ak gaz bi ci Sénégal nguur gi war a xoolaat ni nga xamante ne moom la ñu jëfandikoo kopparu réew mi muy wàllu reddition des comptes bi nga xamante ne soxal na lool l'observateur tey yéene kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni kon bëri na ay ministres yi nekkoon ci nguurub Macky Sall ci prison la ñu jëm ñenn ñi sax ngir jëm ko moytu wala yéexal yëf yi bëgg nañu daar daar ñu daal di leen fal ab moo tax ñu daal di daw làkkatu ci ay liste nationale sàmm sa kàddu ci guddi gu bër setagul la nekk Vox Populi di fàttali ni ànd liggéey sunu réew moo déposé ab recours ca conseil constitutionnel mu fas yéene sukkandiku ci article L29 bu code électoral jëm ci dogal bi nga xamante ne moo tukkee ci wàllub yoon bi wane ni kon moom maire bu ndakaaru walul bokk ci élection législative yu ñu dëgmal ndax daan bi nga xamante ne am na ko ci faatub Ndiaga Diouf lii moo tax yor-yor bi mel ni kuy dëggal sax ni Barthélémy Diaz moom du bokk ci élection yi lii yoot Barthélémy Diaz ci biir L'As Quotidien mooy askan wi ci élection législative yi wees ba tax seen liste titulaire yépp conseil constitutionnel daal di koy gantal mu mel ni le témoin yéene kaay loolu la njort ba gis ni Barthélemy Diaz moom ci jafe-jafe la nekk waaye boo moytul dina yóbbaale sax kii di Anta Babacar Ngom yum bu piir ba ci sax ki nga xamante ne moom mooy Déthié Fall ndax ñoom ñëpp ci liste titulaire yu sàmm sa kàddu la ñu nekk waaye ñoom ñëpp mën nañoo dundee yaakaar ndax réew mi quotidien mu ñuy xamal kii di Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko ci seen wàllu bopp démb déposé nañu seen mémoire de défense ca fi nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel ca Fuuta moom élection législative yi war na fa tàng jip ndax le quotidien yéenekaay dafa gis ni li ñu jàppe woon titre foncier bu APR jamono ji mu mel ni loolu dafa tàggatémbe ndax responsable yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi wan ginnaaw kii di Macky Sall bokk na ci maître Malick Sall mi daal di démissionné ay leader yu bëri tamit fas yéene banque seen loxo ci yile élection ndax li ñu mer ci investiture yi looloo tax njiitu réew ma woon tàmbalaat waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ay ñooñam foofee ca Fuuta gannaaw Fuuta ca diwaanub Jolof tamit xëccoo gi war naa tar lool bis bi le jour wax ni li ko waral El Hadj Malick mi nga xamante ne mooy jëriñ ju ñu dénk wàllu dem dikk bi moom moo jiite li su Pastef foofe ca diwaan ba mbébétam moom jëriñ ji mooy fexe nekk buur ba Jolof waaye yéenekaay bi di xam ne ni am na ci ab ndëggu sërëx ndax bu yóbboo mu moytu ki nga xamante ne moom mooy Samba Ndiobène Ka Aly Ngouille Ndiaye tamit li nga xamante ne jël na ko ni dogal nekkoon du bokk ci élection yi day banque loxoom yéenekaay bi di laaj ndaxam li nekkul xeetub jàppale jëmale ko ci waa Pastef ci élection législative yi élection législative yi ak xeetu coalition yuñ ci gis enquête yéen kaay dikkaat na ci ni nga xamante ne moom lañ ko tëggee mu gis ni ay alliance la yenn saay mu méngoo ak rivalité ba ci sax xeetu trahison yi nga xamante ne duggulat ñu koy gis ci Sénégal yéen kaay bi di fàttali ni kon diggante Abdou Diouf ak sengoor li nga xamante ne moom mooy transition bi rataxoon na lool waaye du lu ni mel lañu nemmeeku ci diggante Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade nga xamante ne yëf yi ñagasoon na lool ba ci tamit maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall noonu ba tey ji ñu fas yéene lëngoo ngir élection législative yi diggante Macky Sall tamit ak Jomaay Sonko mu mel ni jamono ji tembe ci ay fayonte la ñu nekk diggante état ak école privée yi moom sagara ngay xeeñ Sud Quotidien moo ni dikkaat ci coowal kaala yi mu gis ni ba fu mu toll ni daal état dafa mel ni xamagul fan lay teg tànkam ndax lu mooy salle de classe yu doyul li mu jàngalekat yu néew lool ba ci sax abri provisoire yi am na lu ko doy sëkk muy coowal voile bi nga xamante ne kon dafa mel ni ba léegi nangoo ñu ci tënku li koy firndeel mooy école Sainte Bernadette bi nga xamante ne jël na ci dogal dàkk benn ci ab élève loolu tax na ba jëwriñ ji di Moustapha Guirassy bindaat ab communiqué ngir indiat leerlu ci dogal bi nga xamante ne état ci boppam jël na ko yéenekaay bi di laaj ndaxam dogal yooyu mooy li war a sut règlement intérieur ci biir école yooyu l'info yéenekaay addu tamit ci coow loolu muy xam ne ni état dafa fas yéene dëggal boppam imposer ay luwaawam ci école privée yi état mi fexe ba imposer ñu jëlee fi Aliou tombé fédération bu football ma ngay xalaat ana kan moo koy wuutu les échos di xam ne ni kon li leer ba leer ki war a wuutu El Tactico moom ab doomu sénégalais lay doon moom El Tactico di Aliou Cissé Rewmi Sport di ñu xamal ni démb daal fédération di nañ koy delloo njukkal bu baax a baax ndax li mu def ci bopp équipe nationale bu Sénégal nee ñu duñu ko fàtte ba faw ndax bokk na ci taarixu football Sénégal ñu jeexale ko ak mbir mu doy waar bi nga xamante ne l'observateur moo ñu koy nettali tey muy ab awo bi jël doomu ñaareel bi nga xamante ne tol na rek ci fukki weer